premier combat de la soirée Papiko ak doomu Diamaguène doomu Diamaguène sànni na léegi ah ko arrêt bu dal mais doomu Diamaguène daanaan la daw na jël ko wañ ko dóor ci suuf jël bi rëy na non xale bi ndaanaan la xale bi daa mën a bëre non doomu Diamaguène dafa mën a bëre xale bi ndaanaan la. li bi door bu passé ak ñaa bu ndaw li bu door bu passé jiital tànku ndeyjoor li bi door bu passé. sani na mu fayu daw na mepp ko mu taru ko nya dawal na loxo ci géeñoo sërxal na mi gi dor nya gi dor limi dor dóor tek bat na ko mu rasu fakh ko daw na plaqué ko mu rasu daw na diko xar mu rasu taf na ko diko sukor bi mu lank delo na ko dan ko ñaa daan ko ñaa bu ndaw daan na ko daa topp action bi Caatu Daouda Fall ak Socé Mané numéro 2 Socé Mané moo yor ngemb lu weex li Caatu Daouda moo ngemboo fax bi ñu ngi lewaatoo ñu ngi lewaatoo ah gëdd na ko door na ko crochet droit daw na yooru door ko kuyu dal daw na jël ko mu tëgg ko nooju fàq na ko mu bañ caatu daawda andi ko daan na ko jël bi rey na caatu daawda faal daan na ko rakk ci les na papaam la les ngi noonu jëm ci moom. bay xaana dofu jaaz Boy Xaada jël na sengoor gi mu laloon takk ko ci ndigili Doomu Dia sànni na Boy Xaada gëdd ko mu replier demee nañu wet ñoom ñaar Doomu Dia ak Xaada waaw waaw waaw daje nañu mu bàcc ko laaw mais jël na ko Boy Xaada jël na ko Doomu Dia tëggu ko mboot daan na ko teg na lex bi dafa jaas daan na ko ñu ngi lewaato Mor Kang ak John Kara sànni na mee dalul Mor Kang Kang da ko sëkkatal dox na ci koom Mor Kang Kang sëkkatal na ko daw nañu daje déyante nañu Mor Kang ak John Kara ñi ngi téyante ñoom ñaar feebar na a ah, bat na ko Mor na ko John Kara roof ko kalkal bay na ko doon na war ko doom ba ka dampi Mor Kankan daan ko daa mën a fecc ma dem magay dem magay dem ma ngay dem ma ngay dem Mor na daa mën a fecc day dem ma ngay dem ma dem ma dem cey du suuf ñu ngi lewaatoo Ameth Deme 2 ak toujours prêt Ameth ko sëkkatal gëdd na ko xeex nañu ñu ngi xeex jàppante nañu ñu ngi téyante ñu ngi téyante ñu na ko mu cëppeelu ñu ngi téyante fàq na ko mu rëbb amee dem fàq ko mu rëbb ñu ngi xeex amee dem ak toujours prêt ñu ngi téyante

fàq na ko dóor na ko mu rëpp mu fàq ko daan na ko da koo kawote dafa jël ku kawote booy jolof càndum dë ñu ngi lay waato càndum sànniwaat na ñu ngi lay waato damante nañu baaraam dawna jël ko mu rasu teru ko dor na ko tank dal ga ndal ak mom càndum jël nako mu pusulu ko mu rasu rëpp na ma koy jema mbot mboot na kalkal roof na ko galgal càndum ak boy jolof càndum ak boy jolof roof na kalkal tëkk ko mbot jiitu boy jolof taanu na lim doon tante baaxul lim tante baaxul kenn du mbootee noonu. di gërëm waa Guédiawaye yëpp jàppal nañ ma taxaw na ma doole nañ ma père damaa sonn ci petit combat sept combat sept victoire la am benn défaite maa war a bëre grand combat damaa sonn maa ngi waa sant waa Guédiawaye sama turam Malick Thiandoum mention spéciale